waa gars yi ñu ngi leen nuyu yéen amateur foot yi Sénégal instant yi nag ñëpp ko sippil sippil sippil chapeau boo xam ne nekk Canal Plus ñu consultant football yi légende yi nangul trace Sénégal du ñu wax gars yi lul kaar kaar kaar mais yéen ñi bëgg xam ne ci légende yi wax ak li si consultant yi wax da ngeen topp Remo Sport vidéo bi jeexee di ngeen xam dëgg-dëgg lii wund vidéo bi mais laata ñëw ci loolu dañu wax yéen ñu kan ci bile page ngeen abonné te ngeen bi pour ngeen seen à temps réel fii ci Remo Sport ça va gars c'est exceptionnel c'est magnifique c'est beau franchement les champs yi yëpp a ngi wax consultant yëpp a wax ci équipe nationale bu Sénégal xar kanam bi mu wane gun ci coupe d'Afrique bi mu nekk benn jeu boo xam ne ñoom dañuy yëm dañuy impressionné ci ni ñuy def short de bari ni ñuy marqué rawatina xale bi nga xam ne mooy Lamine Camara ñoom dafa am ñoom benn impressionné boo xam ne bii mënuñu ko expliquer waaw di maanaam di ko kaasal na Alioune Sèye war ko quatre-vingt quatre-vingt-dix mille dafa war di génn muy sacrifice xale bi. dañ ko sécurité nag carrière dafa am solo nga xam ne tubaab yi ñoom dañoo bëgg football ba bu ñu ak man football ah, ko xam am na style bi mu yor jël ko ci kenn kon gars yi franchement Sénégal am na mérite Sénégal am na mérite carrément na ñëpp gën a bàyyi xel équipe bi di ko ñaanal te di suivre ku sa xalaat sa point de xam ne équipe bi mën nañu indi la li nga xam ne mooy coupe d'Afrique bi te bientôt incha allah ñu jot ci ngeen abonné